c'est la liste Benno Bokk Yaakaar ñuy ñaan votel ñu wax nañ ko fu nekk jour bu nekk def nañ activité bu mel nii ñun sax lii xëy na dafay xaw a nuru meeting mais dañu ne woon chaque jour dañu def benn tee ba mais démb gis nañ ne gars yi dañoo accéléré cadence bi ba nga xam ne ba ñu demee Malamine Senghor yëngal nañu xam naa ne euh, je ne sais pas ndax amu information que mais liste réew mi bu Thiès est ndax retiré wuñ ko ndax bo féké tête de liste ci koñam ca Malamine Senghor moom mu ñew fi ci fiñu taxaw ni da di fi may tan beer wacce fi ay car donc euh, xel warna dal ne mom warna na xam ne suba en tout cas je ne sais pas si c'est trop tard mais suba bu féké mën nañu retirer sen liste ñu retirer sen liste de la compétition mais fii Thiès en tout cas Thiès est duñu fi am dara. ndax liggéeyuñ ko fi liggéeyuñ ko fi amuñu dara amul benn réalisation Cité Pilote am problème assainissement Malamine Senghor am problème assainissement terrain bii nii terrain bii nii kan moo ko defar te ki yor responsable assainissement ci mairie ba nekk réew mi mais koñ boobu la dëkk donc loolu moo lay wane ne faale wuñu ñu ñun aussi nañ leen wane carrément faale wuñu leen nga tant que vous ne sanctionnez pas tant que vous ne sanctionné pas les des dirigeants yi nga xamné duñ def seen liggéey suba ku fi encore une nañu troisième chance pourquoi pas moi il faut que nous commencer à sanctionner bu ñu commencer à sanctionner ku mel ne man bu fi toogee ak équipe am dañ leen jox un cahier de charge bi nga xamné dañu remplir un contrat à respecter et à honorer donc euh, wax ji du ay kàddu ngeureum la rek li revue de trouble mais di len ñaan aussi vote bi ñaari yoon lañuy voter ñaari yoon lañuy voter voté dama bëgg suba mu doon waxtanu grand place yépp ñaari yoon lañuy voter bu kenn yakamti bo jëlé bulletin bi spécimen yi ma len jox nak du yoy ngeen duggal ci enveloppe bi da ngeen koy bàyyi ci kër ga mais na ngeen xamé bop fas bi rek xam nga élève bu tollé ci classe terminale limi kërro yeen tamit da ngeen wara a kërro li tay suba ngeen ngeen suba suba ngeen nafar suba ngeen nafar ginnaw suba bu ngeen xeye bu len ci yakamti dara ndax jouru koor la bu len ci yakamti dara mais comme ni ma len koy waxe toujours comme ni ma koy waxe fep toujours bu len xulo bu len xex du ragal de du dañoo ragal ndax gis ngeen suñu premier té débat dañ ñoo sanni ay xeer ba blessé fa ay nit dañ ñoo sànni ay xeer ba blessé ay nit mais taxul mané ragalu ñu ñun buñ ñuy ray buñ ñuy ray na doon tay mais ñun bu fekkee ne dañ ñu nar a parce que dañu bëgg changer suñu dëkk na jar buñu daw koñ bu ne dugg nañ fa def lu melni ragalu ñu titu ñu té dañ koy def ma len di wax bu len xulo kenn comme ni ma sama nit ñi bu len teppi affiche kenn sama affiche te du ma bouger damay tafaat rek damay tafaat te souvent fi muy jógee dafay bett sax nit ñi muy nuru nag leneen mais lii dañ koy weesu après le 29 lii dana weesu yeneen problème yëpp na lañ ko réglé ma leen di ñaan ku leen xosi ci centre de vote bu leen fa xeex bu leen fa xuloo jël leen seen bulletin benn bulletin bi ngeen di jël ngeen dugal ko ci enveloppe bi xale yi dama bëgg ngeen déglu bu baax.

Nous fi nekk ñëpp ñu ngi leen ñaan voté ñu ngi leen ñaan bu da changement parce que Thiès opposé wu na pendant 12 ans de 88 à 2000, nous ñu ne jeunesse malsaine Nous jouons encore de 2000 à 2004, nous avons ñu chance ndax tey jii bu ngeen gisee Idrissa Seck di jàpp ci chantier de Thiès mais bi ab bi mu Wade de Thiès arrêté ça veut dire que nguur mooy liggéey. nguur da ngay déggoo ak moom mu liggéey yow nga am say projet mu jàppale la ci donc 2004 bi mu xuleeg président ci nga xam ne ne dootul du woon projet am de projet chef de l' état la te chef de l' état Macky Sall am na projet yu rëy ci Thiès te ñun ñun Thiès ñun ñoo ciy profité wax naa pour wane ne rek nu suñu mairie ñàkke njëriñ mooy que ne gis naa ne nag démb peinture nañu li ma doon wax bi li ma foto woon di ko wane seen buntu mairie bi nga xam ne toog nañu nee nañu président Macky Sall amul amul peinture. ñoom buntu mairie ba nekk fa at ñu toliyee woon ko peinture ko bi ma ko bi nga xam naa bi ñu ko génnee barki demb daal demb demb parce que ba démb barki démb romb naa ko fa démb gis naa ne peinture nañ ko bu ñu toogee ne chantier de Thiès mais c'est parce que tout simplement euh, borom kër waxtaan na neex borom kër président Macky Sall mu ngi yeggale ay chantier Thiès mais li nga xam ne mairie war na ko def war na ci déggoog également l'état central pour mu mën ko ci jàppale ci ay compétence am sinon du dem fenn ñun nag am nañu équipe bu compétente am nañ ci yaakaar que ne buñ ñu joxee mairie bi am nañu xarañ bi am nañu compétence bi am nañu sérieux bi pour mën a gérer mairie bi te moi man de en tout cas je suis candidat à la mairie de Thiès Est. du damaa xeeb samay morom de mais sama bëgg-bëgg laa wax sama bëgg-bëgg laa wax. ndax élection li élection liste lay don li élection liste lay don élection des personnes donc élection des personnes des des des de de l' municipale après lay don donc kooku ku mu neex nga daal di postuler donc man ci kaw lolu yagna ko wax yagna ko dox te yàgg ko jëfe pour wane né amna programme bu lèr bi nga xamné mang ci ngi ak samay nit pour ñu teg ko mu nekk. benn offre bi nga xam ne ñu ngi koy defal à la population de Thiès fu ñu jaar fu ñu jaar wax ko nit ñi nit ñi déggoo ceeg ñun ba ci pro programme énergétique ma wax démb démb am na ku ñëw seet si ma fii ñëw am benn mu ne dégg naa sa waxtaan ci énergie bi ni nga ko bëggee euh, def moom wa nee na waxtaan na ak président Macky Sall ba président Macky Sall amoon na lu mu ci financé woon moom la ko financé woon mu am ci prix kooku c'est un premier partenaire bi nga xamné peut-être buñu explorer explorer voie bobu dañu mëna am liñu soxla ci énergie fi ci Thiès parce que état bu amé ay compétences transférées bu amé ay compétences transférées dañ ko wara tek ci loxo nit ñu compétent damay wax ne damay wax ne avion lu mu avion lu mu gaaw gaaw gaaw lu mu sophistiqué sophistiqué bo ci tégué ki nga xamné amul compétence pour dawal ko du mësa taal machine bi du xam fi ngay taale li dal mairie bi nak du question dañu mënul dawal mais de mënul sax tal auto bi dañu mënul sax tal c'est bi que problème bi donc may wax ne minuit passé na minuit passé na à ah, G sa engagement lu mu doone bos ko donc loolu bu ma ma leen di ñaan yalla nak yalla am yalla mo mën budé li nga xamné li ñuy wut la bu dee narul ji kenn ci ñun yal nañu yàlla wutal bunt bi nga xam ne ci la ñuy jaar ba nga xam ne es dana defaru ndax loolu rek moo ñu ñor du ay salaire maire wala yeneen mais c'est parce que dañu bëgg a defar suñu mairie dañu bëgg defar suñu commune wax naa ci complementarité territoriale wax naa ci agriculture naka lay générer ay ressources ak naka lay générer ay emplois ñu couplé ko ak habitat social pour que jeunes yi mën a am liggéey te loolu c'est bien possible parce que boo xoolee village yi nga xam ne ñoo ñu jege communauté rurale yi ñu jege ñun Thiès Est ñoom seen doom yi dañuy jàng si fii seen jabar yi dañuy faju si fii ñoom seen bopp dañuy faju si fii mais en complément ñoom en retour lan lañ ñu mën a jox am ay suuf yi nga xam utiliser wuñ ko ñun am ci xalaat ba xam naka lañ koy mën exploiter ba créer des emplois pour les jeunes et c'est bien possible donc ce yëpp partenariat programme de c'est à travers les débats qu'on a tenus tous ces jours-ci depuis les 15 jours de la campagne pour mën pour chaque jour nous avons jël tombe, pour tenir la mais encore une fois je ngi leen di di leen choses. mention spéciale li ma waxoon li ma waxoon ci waa marché central rek laay wax ci ñoom defaluma leen dara ñoom ñu dëkk ci koñ bi jàpp seen njàmbur defaluma leen dara lu tax ñu topp ma nii defaluma leen dara jékki-jékki rek ñëw a ah, waaye nag dama ci am mag nag mooy seen jëwriñ muy moo di juuf nga xam ne waa këram yëpp dañu ñu dëkk Malamine Senghor fii. di anda ak man ñu suñu couleur yu yag nek seen jëwriñ fu ma dem ñu accompagnement téruma sargalma motax sargal ma man seen slogan man dama koy jël parce que nit man nga fonk sa réew mais man lima gëm moy nit dafa war jëriñ sa réew lolu man motax seen slogan daldi may neex waye lima ma wa marché central la len di wax man kuma pes dana la kurpeñ te da ngeen maa pes xaar leen xaar leen xaar leen sama kurpañ moo tax ma ne nit mën ngaa gëm sa réew nit ngaa mën ngaa fonk sa réew waaye li gën mooy jëriñ sa réew man sama slogan bi nga xam ne moom laa utiliser ak la coalition Benno Bokk Yaakaar mooy jëriñ sa réew man loolu laa préféré ndax un grand homme un grand homme dafa ne muy John Fitzgerald Kennedy ñëpp xam nañ ko mu doon nit ku bëgg Afrique dafa ne nit bul xool. li nga xam ne sa réew moom la mën a mën a jëriñ mais xoolal yow lan nga mën a jëriñ sa sa réew yéen nag ngeen jël ko daal di koy traduire cette pensée la en en œuvre en en œuvre d'exécution ñu leen di gis ci koñ bi lu baax rek ngeen di fay def ay acte de fa bienfaisance rek ngeen fiy def weeru koor bu jotee ba ba muy jeex chaque jour chaque jour ngeen dugg ci kër yi servir fa donc loolu moom mooy jëriñ sa gox loolu moom mooy jëriñ sa réew donc euh, nit bala ngay ndamoo nit bala ngay ndamo sa dekk nan man gëm sama dekk wala gëm naa sama rew wala fonk na sama dekk wala fonk na sama rew da ngay set lan nga meuna jeriñ sa dekk wala nga meuna lan nga meuna jeriñ sa sa rew te ëllëg ak sibir biir nit ñi dañuy faté suñu borom nañu laaj daf ñoo denk koñ bi daf ñoo denk koñ bi buñ fi agressé nit tay ji te mënon nga défar lampe bi mën defaroo yow te mënon nga ko nañ la laaj pourquoi defuloo ko Seydina Omar bi mu Khalif, da na tok ba guddii di wër di seet ndax amul bëy bi nga xam ne boromam fàtte koo ginnaaw ndax boobu tam moom moo nekkoon xalif te xam na ne suñu borom dana ko laaj bëy boobu lu tax tilla lekk ko wala leneen loolu rek moom moo tax léeg-léeg deux heures du matin wala trois heures du matin xale yu bëri fii xam nañ ne damay dox fii di xool naka la naka la ñu mën a defee éclairage bi ba bërki démb moo ci mujj zone bële ne pourtant du sama nee nañu moom mooy koñ koñu futur seen futur maire yéen loolu la ñuy wax seen koñu futur maire te mu ngi lëndëm kurus ba festival te ñoom ñoo yor aujourd'hui mairie bi loolu gàcce la te loolu bi ma ko gisee yëg ko bu ma jugee foofu bu ma jugee foofu bu ma jugee foofu mairie bi dañu xamul ne am nañu àq képp ku accidenté ci yoon bi yoon bi ñu jël pour ñëw fii nii ñun de bokkul ci réseau classé mais jël nañu daal di def entretien route bi daal di fattaat turu yëpp ndax toutes les semaines ñu woo ñu ne accident am na ñu jël daal di yóbbu hôpital bi ñu ko yëgee nekk aux affaires jël nañ ñu daal di koy defar te am na ñi nga xam ne am na ko taxaw wax ma ne ma man bi ma juddoo ba léegi mosumaa gis tali bi wàqi nañ ko daal di koy daal di koy defar donc loolu la ñuy xaar ci maire ñun dañu fi nekk rek ay maire yi nga xam ne da ngay mbubboo maire di sol dra euh, bandu maire dañ fi nekk maire yi nga xam dañuy may woo nag may woo sama frère yëpp yi nga xam ne ak sama sœur yi nga xam ne ñoom ñoo nekk dans l'opposition nekk ci cité bi ma leen di ñaan ñu rejoindre ma ci liggéey bi ndax liggéey bi mu ngi ñuy xaar te fii am na problème assainissement cité Pilot am na problème mu fosse waxoon naa ko fii sur les ondes du de Sud FM le 26 mars 2012 boobu laa commencé man samay local fii ko waxee ci ëtt ne régler les problèmes de Thiès Est localité par localité mais par spécificité ndax problème yi nuroowuñu d'une zone à l'autre Mais santé également wa Balabé wa Eglon, wa Parcelles Assainies wa Cité Lamy waa salam. Salaam koñu Thiès Est yëpp maa ngi leen sant Cité Ñax awma seen fay wa Malamine Senghor awma seen fay wa Buntu Depo, awma seen fay wa Eh, naka la tuddee encore jamm gën jamm gën aussi dugg nañ fa barki demb ñu poser ñu problème ndox né da fay ta mané len affaire ndox du question da fay ta rek nañ len may xeer parce que xeer bi xeyna mëna yok jangoro bi lolu génie civil la bu ñu yoree mairie nañ def étude bi pour xol lan mo koy mais dañ mané problème lamp sen lamp yaangi ni at mu ngi ni takul ëpp na at sax waaye ci guddi googu tak na ci ci guddi googu defaral nañ leen làmp yi mu tàkk donc ñooñu ñëpp retour bi ma am mooy que nee nañu incha allah ñoom de amoon nañ ay dirigeants waaye léegi à partir d'aujourd'hui danañu dugg ci liste coalition benn boo ko yaakaar daal di ñuy voteel donc may sant sama mbokk yëpp di sant samay waa kër ak waa cité bi ànd ak man yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm donc vraiment pour ne pas être